ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di leen dalalaat ci jotaay bi ñu bokk mu jotaayu fatawa ngeen ciy ànd ak cheikhana docteur Mouhammad Ahmad Lo mu féete tontu seeni laaj tey ñu ngi ci jotaayu ñaar téeméer ak euh, ñaar fukk ak juróom-benn muy deux cent vingt sixième émission di ñaan suñu borom subhanahu wa mu defal ñu tawfiq jote ñu ci gan gu tedd gi nga xam ne mi ngi ci suñ kanam di weeru koor niñ ko waxee woon ci jotaay yi weesu laaj yi ñu fexe rek ba mu gën a jëm ci gan gu tedd gi di yaay mu jaamu yàlla ju màgg joo xam ne ci ponki lislaam yi la bokk te ànd ak ay xéwal yu bare bari yoo xam ne ki nga xam ne moo ko dëgmal war naa xam ay atteem war a xam la koy matal war a xam ya koy yàq ngir mu mën koo joxe te nam gën a mate kon Cheikh xanaa dañ lay jox kàddu gi rek nañ ko baaxoo defee ci jotaay bu nekk nga ñu jotaay bi su defee ñu jublu ci liggéey bi bismillahi irrahmani irrahim in alhamdulillahi nahmaduhu wa nastainuhu wa nastaghfiruh wa naudu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati acmalina man yahdihi llahu fala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 daa war toog ba dégg nodd noddukat bi mu soog a dog walla mën na dog lu jiitu ñuy nodd alhamdulilah mi ngi aju ci ki nodd wan waxtu lay nodd am na ñoo xam ne dañuy xaar ba waxtu wi jot ñu dog seen koor doole jóg taxaw nodd maanaam waxtu wi dana jot ba am luy tolloog nangami minute ñu door a nodd su fekkee lu mel noonu la te yow xam nga waxtu wa saa boo xamee ne waxtu dog jot na jarul ngay déglu nodd gi mën ngaa daal di dog su fekkee xamoo waxtu nag kañ la jant bi so kon la ci sës rek mooy nga déglu nodd gi saabu bu noddee rek nga dog léegi nag am nay jumtuwaay yoo xarañ yoo xam ne manees na ci xamee jant bi kañ lay so su la wóoree ne so rek boo déggee nodd boo ko déggul sañ ngaa dog wallahu taala alam jazakumullahu xayran cheikhana kii day laaj nee na ndogu eh, ndax am na ci sunna loo xam ne moom lañu ñu sunnaal nit ki ndogo eh, koo ndogoo wala boog amul alhamdulillah eh, yonent bi sallallahu alayhi wa ay tàndarma su wooree ba su fekkee tàndarma amul mu daal di am ndox ala kulli xaal lépp loo xam ne nit doge na ko kooram ci lu dagana jëfandikoo rek loola dog na koor ga te lu baax la itam waaye su mënee am tàndarma nag mooy li ci gën ahsanallahu ilaykum cheikhana kii de nee na ki nga xam ne dafa xëdd bi lekkee ba noppi nag mu xaw a yéex a naan di xaar tuuti ngir mën a naan far ne nañu mu dégg noddu fajar mu ne koo xam ne mbiram noonu la tëddee ndax euh, mën naa naan donte dégg na noddu fajar alhamdulilah euh, su fekkee ne kooka bi muy noddu fajar waxtu fajar dugg na day moom mënatula lekk mënatula naan su fekkee nag daa bokk ci ñi nga xam ne dañuy def bu fajar desee juróomi minit ñu noddi ngir bëgg a ndax bëgg nit ñi doon lekk euh, bañ juubu su fekkee kuy nodde noonu da ak noddam euh, du tax nit ki daal bàyyi lekk ala kulli xaal li ëpp solo mooy góorgóorlu ba saa boo xamee ne weer wi xas na teru nga fexe bay xam kañ la fajar di tàmbali ak jant bi kañ lay sox maanaam waxtu wi ñu war a jàpp wan la ak waxtu wi ñu war a dog wan la waxtu yooyu nag ci biir weer wi day changer ndànk-ndànk di soppiku léeg-léeg ab minute dox fi diggante démb wala diggante bëkk démb ak tey bu gannaaw subaa dara soppikuwaat noonu lay doxee rek ba weer wi ñëw moo tax yittewoo ko bu baax a baax moo xam da ngay jëfandikoo ab application wala da jëfandikoo calendrier yu xarañ yi nga xam ne nit ñi danañ ko di defar nga sukkandiku ca su boobaa sa caan dana wàcc naam ahsanallahu ilaykum cheikhana abdallahi wadd di wootee bustaan nee na taraawix ndax dafa am eh, nombre ràkka waaw dafa am ab lim ci ay ràkka yoo xam ne nit ki sañu koo jéggi ndax nee na dafa gis ñoo xam ne dañuy yem ci fukk ak benn mbaa fukk ak ñett nee na am na ñoo xam ne dañuy yem sax ci ñeent mu ne yi ndax tënk ko ci benn lim ne doo ko romb ndax loola lu mën a nekk la wala déet alhamdulillah umul muminina aïcha radiallahu taala anha wax na ne yonent bi sallallahu alayhi naafila guddi lu ëpp fukki ak benn moo xam ci koor la wala du ci koor gannaaw bi mu am beneen riwaaya bu muy waxee ne fukki rakka ak ñett ñu ne fukki rakka yi ak ñett la ko indi mooy su masaan ñëw di bëgg a tàmbale dugg ci naafila da daan jiital ñaari rakka su noppee julli fukki rakkaam yooye ak benn waaye Aïcha radiallahu taala anha bi loolu ba àggal daf caa teg ne fala tasal an xusnihinna wa tuulihin nee na rakkaam di fukk benn day taarug njàng ma ak yàggaay ba taarug ma ak yàggaay ba foo ko takk weesu na ko kon nag yooyu ñoo bu xoolee ci dunduk saxaaba yi danañ gis ñoo xam ne naafila nañ lu ëpp fukki rakka ak benn naafila nañ lu ëpp fukki rakka ak benn maanaam ci lu dul ëpp lim loolu boo ko seetloo dañ ko tënk ci waxi yonent bi sallallahu alayhi wa ñu wax ne salaatu leyli masna masna a ida xashiya axadukum tuluu alfajri salla rakatan waxidatan tuutiru lahu ma qad salla mu ne julli guddi daal ñaar ñaar la leel julli di sëlmal rek soo demee ba ragal ne fajar ngi ñëw nga julli ab mu nekk sa wétr wax jooji nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko wax jëmale ko ci xeet wi mu doon ju nañ ci ne nit ki mën na julli ñaari rakkaay ñaari rakkaay ci guddi gi ba keroog fajar di jot foofu ëpp lim nekku fa moo tax waroom xam-xam yi dañuy wax ne fukk ak benn yi e, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon def loolu firiwul ne daa nekk waajib nekkul obligatoire ndax fi'luhu sallallahu alayhi wa sallam laa yu'aaridu alqawl alxaas binaa jëfam du juuyoo ak lim nuy wax nun maanaam su la waxoon dara ba noppi def leneen yow jàppal ci lim la wax loolu benn la beneen ba ca des moo di su fekkee dañuy xool lu gën lu gën ci naafila di ñu wax ne fukk ak benn yooyu de moo ci kaw mu mel ne nag ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon defee jàng mu gudd moo xam ne ci naafilaam léeg-léeg mu jàng suuratul baqara ci ci kàkkaa ba mu jeex teg ci suuratu al imran ba mu jeex léeg-léeg mu def ko yetti saare wala yenti saare sax door a rukkoo lu mel noonu nag xam ngeen ne naafila yi ci jàkka yi nit ñi mënatuñ ko wala defatuñ ko su fekkee nag nit ki day naafila te fukk ak benn yi mënu guddale noona na xam ne ke wàññiwul dara su naafila fukk ak bennam ba noppi noppalu ji te bañ a ba sawaraat jógaat julliwaat leneen lu mën a julli loola insha allahu dara nekku ca wallahu taala alam barakallahu fikum cheikhana abdallah fofana di woote koy lal na dafa gis nit ñi suñuy naafila ci weeru koor suñ demee ba dara desul ci ni ko waxee safaak witar loolu la wax mu ne suñ demee ba dara desul lu dul safaak witar day gis ñuy noppalu noonu léeg ñu noppalu diir bu yàgg nee na soog a jug julli safaak witar ci nim ko wax muy laajte nag ndax noona la wala déet alhamdulilah naafila day buñ ko dee def guddi rakkaa yi ñuy julli muy doon ñaar ñaar ak lu mu bari bari loolu moo tudd shafaa wéetar nag mooy lu mujj la maanaam rakka ba ngay mujj julli wala su fekkee ñetti rakka nga boole julleendoo ko benn yoon loolu la ñuy tudde wéetar loolu ci waxin rek la léeg-léeg nit ñi dañ koy jaawale su nit ki di naafila alxuraan ba mu des ñetti rakkaay mujj yi nga xam ne amaana day jàng sabbih isma rabbikal a'la léeg-léeg ba ci tegu mu jàng qul yaa ayyuhal daal di sëlmal bu jógee jàng suratul ixlaas wala mu boole ci fàllaqig naas yi daal di rukkoo loola nekk witr loolu dañ koy faral di tudde chafa wal witr maanaam chafa ak witr dañ ko koy faral di tudde waaye fekk na chafa ja loolu yi daa àndeeg naafila ja naafila ga jiitu woon loolu lépp soo ko boolee chafa lay tudd witr moom mooy benn rakka bu rek amma nag ñuy naafila ba sonn toog di noppalu kay loolu moom wàññiwul dara su fekkee taxawaay yee yàgg na wala rakkaaye bari ba nit ñi sonn même bu wétar jotagut sax buñ sëlmaloon toog tuuti noppalu door a jógaat loolu dara nekk ci xam-xam yi fiq yi ñu ngi wax sax ne eh, kàddug loolu la jóge ndax tarwiixa mooy ak nopplu di julli ba mu yàgg nga noppalu ëslëf daal di jógaat julliwaat bu yàggee nga noppaluwaat bu yàggee nga jógaat wax nañ ne ëssalaf ci ay jamono noonu yi lañ ko daan defee ci jàkk yi di noppalu di jógaat nga xam ne daanaka dañ koy fanaane moo tax ñu tudde ko salaatu tarawih naam jazakumullahu xeyran cheikhana soxna si yal na ko yàlla sàmm dolli ko tawfiq ñaan na ay ñaan yu am solo waaye wane ne it ni muy jëriñoo ci rajo bi nee na ba mu ko tàmbalee dégloog léegi wax dëgg yàlla yokkute rek la ci gis nee na njàppam gën naa wér julleem yi tamit gën naa day laaj nee na njabootam day sonn ci di leen yee ngir ñu jug julli waaye daal eh, gis na ni dañ ci sàggan am na ci ñoom sax ñu koy wax ne ko ñun daal jarul nga di ñu yee ndax am nañu ay portable yu ñu mën a yee ah li laaj nag mooy ndax su leen bàyyee yee ndax yàlla dana ko laaj ndax yàlla dana ko xisaab wala déet alhamdulilah soxna soosi yàlla na yàlla nangu ay ñaanam te dolli ko njariñ waa njaboot gi de noonu yi muy def mooy li war eh, lu mën a xew rek moom saa boo xamee ne waxtu julli jot na na leen yee su fekkee dañuy nelaw suñ nelawut na leen soññi ne leen waxtu wi jot na suñ ko defee alhamdulillah suñ ko defatit jaanam wàcc na waaye amut sañ-sañu bàyyi leen noona di leen seetaan ak lu mu leen naqari naqari borom bi tabaraka wa taala nee na yaa ayuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara yéen ñi gëm yàlla fegal leen seen bopp sawara te fegal ko seenu njaboot fegal ko sa bopp weesuwul nekk ca lu baax te bàyyi lu bon la fegal ko njaboot gi it weesuwut digal leen lu baax te tere leen lu bon na continuer rek ci di leen soññi te bañ cee taral bañ cee diisal waaye rek wan ne daf leen di laaye biir te bu wéetee mu di leen ñaanal ndax sunu borom tabaraka wa taala gindi leen sawaral seeni cër ci jaamu yàlla naam asaabakum allahu cheikhana mbokk mi nee na eh, keesu jàkka ji ndax mënees na cee jël ngir loo xam ne intérêt général la loo xam ne njëriñul ñëpp la te ci quartier bi la aju nga xam ne waa quartier bi nga xam ne ñoom ñooy duufal keesu jàkka ji ñoo soxla lenn ci keesu jàkka ji ngir defar kàrce bi defar yoonu ndox yi te ci defar góog yi sax jàkka ji ci boppam dana ci jëriñu waale ñu ndax loola kon dana mën nekk wala déet alhamdulilah keesu jàkka ji day mu fekkee ne askanu jàkka ji la fa nekk ñoo ko fay def te gis nañ ne lafa nekk ëpp na aajoy jàkka ji ñu am leneen loo xam ne lu munta ñàkk la te doon njëriñul bindee fi nekk ci quartier jàkka ji wala li ko wër suñ waxtaanee ba juboo ci dindi ca kees ga def ko ci loolu yi nga xam ne lu leen amal njëriñ ñoom ñëpp la su boobaa loolu du wàññi dara ndax lay wàññi ko ca kees gi wala la kees ga di aajowoo bu ëllëgee ñoom ñoo koy dajalewaat rek di ko ca def noonu rek la naam. akramakumullahu cheikhana kii day laaj nee na lan may àttey jëkkër ju ànd soxnaam fekk booba setut mi ngi ci deretu mbërëg. alhamdulilah kooku euh, day sarxe luy tolloog ab dinaar dinaar nag ci or mooy tollook quatre grammes virgule vingt cinq quatre grammes virgule vingt cinq maanaam ñeenti gram ak quart bu xamee gram bi lu muy jar ci or ci xaalis na ko multiplier par quatre lu mu ko jox ci xaalis mu jël mel noonu sarxe ko koo xam ne ku aajowoo la wala ñoo xam ne ñu aajowoo lañ wallahu taala alam jazakumullahu xeyran cheikhana mbokk mi nee na borom këram day dafa tukki bàyyee ko njaboot xëy na nag mi ngi leen mi ngi dépensé ci ñoom mi ngi e, leen di taxawu ci wàllu poos waaye daal li muy jàmbat mooy nee daal du leen di nemmeeku waaye xamul it njaboot gi ci luñ nekk seen wàllu yar daal yittewu joxu ko yitte te yemul ci loolu waaye nee na day aaye seen yaay sax da moom da koy aaye ngir mu wax ak xale yi ci làkk bi nga xam ne moom la nàmp moom yaay ji nee na daal da koy tere loola ndax mu ne nag ndax loola am na ci àq de déet waaye it yenn orientation nga koy jox ci situation yu mel nii. alhamdulilah ginnaaw moom daa tukki jombul tukki ba daa sori waaye seenu dund moom ak seenu nekkin dara manqué wu ci loola alhamdulilah geneen nemmiku ga ca des xëy na eh, am na solo waaye gii wax mooy gi ci ëpp solo mooy loxoom di ñëw. yaru gone moom mi fi nekk na ci góorgóorlu kem kàttanam ndax kat loolu ci ay njariñam ci la bokk ginnaaw kee daa wuti lu njaboot gi dunde soxna si moo fi des lu man ci yar bi rek na ko def amma détails yi làkk wu ñuy wax ak dul wax nag mënta nekk ci bitim réew moom di ko lijjanti soxna si na wax ak ñoom ca làkk wa nga xam moom la bëgg a wax ak ñoom loola dara da nekk ci su ko ko teree it du jëfe tere googee du ko jëfe day def rek li jaadu nit xawma ku ko tere làkk wam nàmp wan làkk nga koy làkkloo woo ko làkkloo rek lakk jàmbur la te xaraña lànk làkk wa dana la dimbali ci xam-xam boo jàng ëllëg bu nekk dana la yomb kon tere gi moom àndut ak uh, xel wallahu taala alam barakallahu fiikum cheikhana kii day laaj nee dafa am ay mala yu ñuy tuddee barma yi mooy ay mala yoo xam ne dañuy dund ci géej gi waaye mën nañoo dund it ci jéeri ji lu mel ni ay jasit ak monaat ak yu ko nuuru mu ne yooyax su dee ci biir géej moom xam nañ ni mënees na ko jëfandikoo su méddee ci biir géej ndax in saa salaam na wax na ni huwa tahuru maauhu alxillu maytatuhu géej daal mooy loo xam ne ndox ma set na laab na waaye médd ma dagan na mu ne nag yooye su fekkee ne dafa méddee ci jéeri ji su dee ci jéeri ji la méddee ndax dana dagana lekk walla déet mu ne daal mi ngi sàkku ay leeral waaye mi ngi sàkku it ay référence ay maraaji yoo xam ne xëy na ku bëgg a ci masala boobu yi mën nga caa dellu alhamdulilah waaw mala yi day bu fekkee dañuy xool ci anam dagan nga ñett dagan dafa nekk ñetti xaaj am na mala yoo xam ne ci jéeri li ñuy dund yooyu am nañ seen attey bopp ca la ca dagan ak la ca daganut am mala yoo xam ne dañuy dund ci biir géej wala ci biirum ndox géej walla dex yooya yëpp a dagan lekk am nag yu nekk ci diggante bi nga xam ne dañuy dund ci géej gi di dund itam ci jéeri ji yooyu nag waroom xam-xam yi juyoo na ci juyoo ndax am na ci ñoo xam ne dañ koo jàppe malab jéeri ginnaaw day dund ci jéeri daal moom euh, tuddeetuñ ko malab géej ndax euh, ba borom bi tabaraka wa taala wax ñamu géej la wax te kii ci day ñëw ci jéeri ji yëmut ci géej bi ñu daal koy jox atteb rab yi nekk ci jéeri ji xool fépp fu ñuy dagan ñu xool foofa ndax moom ñu dagan na wala luy teye mu dagan ñu xool ba xam ndax moom kon daganu tam déet am yoo xam ne dañ ko boole ci mala yi dund ci biir géej rek ginnaaw daf fay dund daal moom ñoom bokkub àtte loolu aji laaj ji junj nag muy jamono yi nga koy jàpp dafa am boroomi xam-xam yoo xam ne dañoo digg doomu ci mbir mi ñu ne jamono yi nga koy jàpp su fekkee mu nekk ci jéeri ji malab jéeri nga koy jàppe su fekkee danga ko jàppe ci biir géej géej nga jàppe ko malab géej loolu aw génniin la woo xam ne wu ma ne sa dégg la woo xam ne digg doo mën la ci masala mi waaye rek dafa am lu mat a xam mooy di caagi loo fekk ci biir géej mu dee rek nga daal ne lii malam géej la daal di koy lekk am na malay jéeri yoo xam ne seen yoon nekkul ci géej waaye par accident dañuy dugg ci géej gi dugg ci ndox lab daal di faatu ci biir ndox ma comme ni muy dalee nit kenn ku nekk xam na nit ci jéeri lay dund waaye mën naa jàng féey bay féey loolu taxut mu nekk euh, koo xam ne ci géej lay dund loolu nag su fekkee dafa dal malam jéeri lu ko nekk xaj boo xam ne fii la doon dunde wala am xar moo xam ne fii la doon dunde ci jéeri ji ba mu yàgg mu dugg ci ndox di féey di jàll farfaatu ca biir ndox ma su boobaa bu fa bu ca dee kooka medd la kenn du ko lekk loolu la bu ci mat a xam naam sallallahu aleykum cheikhana kii nee dafa dégg ne am na lenn ci mag ñu baax ñi ñoo xam ne dañ daan jël seen malaan miñ bëgg ñu euh, woddee leen ko suñu génnee àdduna nee na di ko sol di ko jullee euh, di ko waajalee li nga xam ne mooy euh, dee ñu laajte nag ndax loola wér na su dee wér na ndax mënees na leen caaro yi muy koo xam ne day jël jëlub yére dénkaane ne nañ ko ci sàngee waaye di ko jullee dégg nga di ci def ay jaamu yàlla di ko waajalee dee alhamdulilah xam naa nag di jël ay série ngay sol di ko jaamoo yàlla wut ca loo xam ne da ne da ngaa bëgg ñu sànge la ko di ay nettali sew sewaan yoo xam ne lenn ci aw nit la ñuy wax ne mas nañ koo def waaye loola doonut nag lu ñuy roye kenn ndax nekkul lu siiw ci salafu saalix du ca saxaaba ya duña ya jàngal yonent bi sallallahu alayhi waxu ca dara lu ca jëm wala mu jëfe ko lañ xam daal mooy ki nga xam ne dafa armal doon aj wala mu omra farfaatu dikkal ko fekk mi ngay kuk armalam yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na nañ ko sànge armalam yooyee buñ ko wutal leneen càngaay doonte dajut yaram wa it nañ ko suule noonu loolu lañ xam ci lu jëm ci lu nit di làmboo ci ak armal faata nañ ko ko suule waaye nag sér ya nga doon sol di ci julli nga ne nañ ko ko sànge wala yu mel noonu loolu xamuñu cosaanam ci dalili sharia su fekkee am na ay benn benn nit yi ne def nañ ko it yooyu seen jëfi bopp la waaye nekkul lu ñuy roy ci ñoom wallahu taala alam waffaqakum allahu cheikhana kii day laaj nee na ci wàllu sangu néew ndax dañuy dañ koy jàppal ba noppi soog a jëfandikoo saabu mbaa saabu bi day jiitu jiitu ñu soog koo jàppal loolu daal lay laaj alhamdulilah suñuy sang néew la ñuy jëkk a def mooy su fekkee ne am na lenn lu nekk ci aw yaramam lu taq te mat dindi loolu la ñuy jëkk a dindi ba mu set loolu su fekkee am ndox mën na koo dindi ba mu set ñu dindee ko ko su ko ndoxam kese mënta dindi ñu dundee ko saabu walla am ndéem wala loo xam ne rek luy dindi eh, ay taq-taq la suñ noppee ca loola nag door koo jàppal suñ noppee door a jublu ci cangaayul yaram ba naam barakallahu fikum soxna si nee na dafa woor wooru naafila nee ci bëccëg gi boroom këram soxla ko nee mu ànd ak moom fekk dafa fàtte ni moom dafa woor muy laajte nag luy àttee loola ndax dafay fay koor googi wala déet alhamdulilah danañ di wax ne jigéen bu dee wooru koorug ngàtt nga nga xam ne wóorul koorug ramadaan eh, bokk na ci ay chartam mooy na tàggu boroom këram ndax xamul dana ko ajoo ci bëccëg bi déet ginnaaw nag moom woor na te fàtte na ne dafa woor itam boroom këram soxla ko ba ànd ak moom ba noppi benn mu jàpp ne moom dafa juubu ndax da koo fàtte te ku woor boo fàttee boo lekkee naan yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na continuer sa koor te dara du la ca kon la jaadu mooy su fekkee ne moom wóor na ko ne da koo mu continuer kooram su fekkee nag wu ko waaye borom këram da koo sàkku mo xam ne lii xàqam la te moo ko waroon a tàggu te tàgguwu ko ànd ak moom bu noppee itam dara nag euh, kooram yàqu na du continuer kooram koor ga yàqu na waaye nag dara waru ko nag korug ngàtt nga koo xam ne doon coobarewu di ko di ko def boo jékkee-jékki yàq ko it nag ak pay moom mm, bor nekk fu boo xam ne danga koy fay ala kulli xaal naam day laaj nee na ki nga xam ne dafa fanaanoo yéeney tukki jàpp ne mom bis boobu da ko war koy dog nee na mu biddanti ba mënta tukki mu ne kooku nu muy def ci bisam yi ndax day continuer bañ woor wala day fas yéene woor wala nu muy def alhamdulilah yéene ak koor kii dugg ci weeru ramadan mën naa yéene wooru weer wi yëpp mu nekk jenn yéene du nekk mukk farata ci moom muy def bis bu nekk mu yeesalaat yéene waaye nag su fekkee dafa dog ngir ngànt dog yendoo lekk yendoo naan moo xam daa tukki moo xam jigéen ju euh, gis baax mu dog loo ko la wala leen gànt lu mën a doon luy tax a dog nit lu mel ne feebar ak nuroog noonu su dogee ba noppi dellusiwaat nag di wooraat faaw mu yeesalaat yéeneem nag bu boobaa kii muy laaj nag moom dafa yéene woon a dog waaye ndax bi mu xëyee lekk na naan lekkul naanut kon dafa dafa naroon a dog waaye dogul dane woon bu xëyee day tukki te it narta woor mu xëy far tukkeetul waaye lekkul naanul kooko day day yeesal yéeneem rek continuer kooram lan jàpp ne mooy li gën a dëgër ci masala mi ñàkkul nag ak wuute waaye lay firndéem te dëgëral ko moo di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daana xëy laaj waa këram ndax ndekki am na ñu ne déedéet mu ne bàyyi leen ma woor kon daal di continuer kooram kon foofu mën ngaa xam ne euh, charte bi nekkul ne faw nga fanaanoo yéene ji ba suba li am solo mooy defagoo lu yàq koor ci suba gi kon yéene weesu weesuwut am na nag ci waroom xam-xam yi ñuy wax ne loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci kooru ngàtt nga la ko doon def waaye defu ko ci ramadan waaye loolu ci xa kenn ku nekk xam na ne mën a suta xëy ci ramadaan naan ndax ndékki am na ci kër gi waaye nag gisuñu lu koy tàqale ndax koor nag koor la maanaam jaamu yàlla la kooru ngàtt nga ni ramadaan doone ak jaamu yàlla noonu la doone jaamu yàlla ni ramadaan aajowoo yéene noonu la ko aajowoo moo tax duñ ko woyefal mukk nag kon dañuy jàpp ne képp koo xam ne xëy nga go lekkagoo naanagoo man nga continuer sa koor su fekkee yéene nga ko wallahu taala alam alhamdulilahi rabbil alamin mbokk yi mel na ni yëgsi nañu fi ñu baaxoo yëkkatee suñu jotaay eh, yéen a ngi woon ci jotaayu fatawa bi ngeen bi ñuy ànd yéen ci rajo Kepar FM fii ci Kaolack ci waxtu wi àjjuma ju nekk ngeen ci ànd ak eh, seen mbokk Abdoulaye Sall mu féete woo gaaral seeni laaj ñu ci doon ànd ak Cheikh Ahmed docteur Mouhamed Ahmed mu féete woo tontu laaj yi kon tont yi leer na laaj yi tamit am na solo kon ñu ngi ñaanal ñëpp ñu ngi jaanal déglukat yi di ñaanal euh, rajo bi ak ki nga xam ne mooy nekk ca bopp ba ak technicien yi nga xam ne ñooy jàppalanteeg euh, rajo bi ba kàddu gi di mën di jàll di yegg ci yéen waaye nag ki nga xam ne mooy dëgg dëgg ki nga xam ne mooy borom émission bi di nga ki nga xam ne mooy jàngalekat bi di tontu laaj ji di cheikhana docteur Mouhamed Ahmad Lo yàlla na ko yàlla sàmm dolli ko tawfiq kon euh, ñu ngi digg mbokk yi daje rek incha allah ajuma ji ji ñëw yàlla nañ ko fekkee te tal ko danañu fekk ci koor gi di ñaan mbokk yi rek ñu bàyyi xel laaj yi nu mu gën a jëmee ci koor rek mu gën a am solo kon cheikhana kàddu gu mujj gàngook ñu jox la nga tëjal ñu jotaay bi allahuma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim alhamdulilahi rabbil alamin Cheikh Abdallah li ci lu ñuy teertoo koor mooy tuub bépp bàkkaar boo xam ne nit ki xam na ne doon ne ko def te jaaduwut moo xam ay wax la moo xam jëf la moo xam pas-pas la mu fexe ba set ca wecc balaa koor gee ñëw fas yéene weeru koor wi bu dikkee daal dafa fas yéene nekk keneen koo xam ne ya nekkoon ci moom ci jikko yum gërëm loowul fas na yéene tàggoog moom ni mu amee engagement man a tàggoog lekk ak naan bëccëgum dara kam la ko tàmbalee ci fajar ba timis noonu dana ni amee engagement ci bàyyi lim doon def ki doon jëw doogu ne fas naa ko yéene bàyyi ki doon sànni aw làmmiñam ci ci yarami doomu aadama yi di leen ŋàññi di leen xas leen saaga di wax yu tekkiwul dara mu ne fas damaa yéene tàggoog moom ki doon tux wala muy lekk wala muy naan loo xam ne lu xaraam la mu dogu ne lii duutu ci dellu ki doon lekk alali jàmbur mu dogu ne lii fase naa ko ci la ab jaam di gàttandoo Ramadan fekk borom bi tabaraka wa taala jéggal ko ay bakkaaram su ko defee kooram ak i naafilaam lépp ay tuyaaba doon ak ay daraja yu ñuy yëkkati koor daa war a nekk benn projet ci dund gi boo xam ne aji woor ji day yëg ne moom mii koor gi aw naal la woo xam ne da ci fas yéene génn am weneen melokaan wu mel wu bokkut ak wu meloon koor loolu lay jëriñ ci dundub doomu aadama moo tax borom bi tabaraka wa taala nee na li tax mu farataal ko ci yéen ak ña leen jiit mooy ak ragal yàlla mën a nekk ci yéen kooku mooy objectif bi mooy jubluwaay bi yàlla nañu ko sunu borom tabaraka wa taala may wasalaamu aleykum wa rahmatullahi